daleen ak jàmm mbokku internet yu seigneur njariñ TV wax ci Lat Diop nekkoon fi nak ministre des sports ci jamonoy président Macky Sall bobule bokke ci coalition Benno Bokk moom Lat Diop nag la ñu sulliwaat ay mbirim ndax kii di jëwriñ gi gàlloo wàllu njàng mu kawe mi di enseignement supérieur moom def na a révélation yu tey waar jëm nag ci yorinu ko koppar gi foofee ci ministère des sports te Lat Diop nekkoon fa Abdourahmane Diouf di waax ne sama collègue Khady Diène moom nag dafa ñëw ci ministère de sports ñetti weer ak ginnaaw nag ba ñu exécuté budget bi wante nag dañoo gis ne budget ba ñu fa waroon a jagleel jëm ci compétition internationale yi ci diiru ka at loole lépp dañ ko dépensé ci ñetti weer di prétexte nag li nga xam ne moom mooy kaan bile jëwriñ gi nag di préciser que ne collègue bo bu sport moom nag mu ngi nekk di def lu mu mën di débrouiller ngir régler situation bi Abdourahmane Diouf nag manqué wul benn yoon sànni ay xeer kii di la Diop nee na nag pourtant dañu ngi dem ci ay Jeux olympiques te ministre bi dafa war a am budget moom nag dafa obligé wu rek di débrouiller ngir am xaalis boo xam ne dina ko accompagner athlètes yu sénégalais yu jàmbaar yi lee nee nag loole du bu gentleman i dépenser budget boo xam ne ay compétition la ci diirug at nga caxat caxatee ko ci ñetti weer moom la Diop nag bu leen fàtte benn yoon ne Macky Sall daal dina koy dàq ci gouvernement bi en tant que ministre des sports ba dénkoon que kii di Mame Mbaye la laata sax muy perdre présidentielle bi loolee nag dafay corroborer ak accusation de mauvaise gestion yi nga xam ne la Diop amee na ko loolee nag moom Lat Diop ma nga nag Angleterre moom di doxal na mu nit ñi nag la ñu bëgg moom mooy yoon baral loxoom nag ci képp koo xam ne daal def nga ay ñaawteef caxat-caxate xaalis bi daal di jël suñuy suuf yoon nag daal def li nga xam ne moom mooy liggéeyam moom la Diop nag tàmmoon nañ ko gis ci ay wax yu tegginuwul wante nag ci jëfin yu tegginuwul jëmale ko ci gouvernement bu bees bi laata sax ñuy